waaw comme ni comme lay ni ko waxee merci beaucoup lay fan yi yëpp ñu ngi lay sante di la gërëm fan yëpp nelawoo fan yëpp am ay nelawoo ya ya yaa ñu andal yëpp comme ni ko waxe plateforme bi fi la ñun ñu jeunes yi gëm PDS gëm Karim wa do nek ñoro ñu organiser une plateforme ànd ci ñom grand lay ak ñu andal àndal ñu organiser bus bi mu nekk ndogu des karimistes de la plateforme des Karim ñoro contane nañ trop ñoom selu ñoom amour Diba wa Laay ak ngay fay ak jigen ñep ñu ngi leen di sant di leen gërëm tam bi dafa gatt grand lay liggéey rek mo fi des pour Karim may Wade pour PDS merci beaucoup voilà euh wa ñoro di wax ne rek masubilahi euh, mina seytaane rajim bismillahir rahmanir rahim gannaaw bu ñu sante yalla jund ci yonentou bi sallallahu bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp euh, di gërëm vraiment sunu frère secrétaire général muy maître Abdoulaye wad ndax lu jir njaaga moy njàgg tay ji nak euh, dañu dajé fi ci ñoro pour war fi def lo xamné lañu lañ ci dé ndogu dé karimis donc lool nak tay liko initier moy ben plateforme bu créer muy plateforme dé karimis de ñoro ñu initier ko ñu nak ay jeunes yo xamné wax deug yalla yag nañ leen xam seen compétence ak seen dynamisme ci parti démocratique sénégalais bi ñu ñëwé gis nañ leen ñu and ak ñom pour créer li nga xamné moy plateforme dé karimis ci biir PDS ñun liñu ñu jog Karim wad la mom lañuy ligéyal li Karim wad la du keneen donc tay biñ créé lool nak ci bir koor gi lañ dañ koy def bes ni tay muy le 24 avril ci fi ñoro ci place rond point bi ni tay moy luñu dajalon ni di gëreum nak parce que kenn ni rek mënul ñi fi tew ñep dañ ci duggal seen loxo ak ñi fi tewul kep ko xamne ni bëgg nga ablay wad gëm nga Karim wad rek duggal nga ci sa loxo ñu ngi lay gëreum di la sant muy ñi fi tew ak ñi fi tew dama koy fa waxat ñi nekk ci département bi ñu ngi leen di gërëm ñëwuñ mais seen kàddu ñëw na seen loxo ñëw na pour wan leen ne plateforme bi li ko tax a jóg waxaat naa ko dama koy répété waat Karim Wade moo ko tax a jóg ñu préparé pour dooleel ko ba ëllëg buy ñibbi si Sénégal képp ku nekk ci département ñooro dina sentir que ne plateforme des karimistes joué na si benn rôle bu am importance pour que soutenir le frère général maître Abdoulaye Wade ki nga xam ne muy doom ji muy Karim Meïssa Wade donc mooy moo loolu moo ñu fi teewale tey fii si li nga xam ne nii nag wax nañ ko mooy que ne plateforme karimiste bi ñu fi jógee waxoon nañ ko keroog bi ñu xamee ne tey nañ fi ñoo dimanche li ñu envisagé def mooy que ne chaque quartier plateforme karimiste ba dina fa installé wu ñu def ay fiches yoo xam ne képp ku nekk ci carte pour ñu mun la identifier dañ lay bind non nom prénom ak quartier bi nga bokk bu six quartiers yi matee dinañ xam quartier bu ci nekk karimiste plateforme ba fa nekk su boobaa ñu mën a créer loo xam ne di def animé animation le faut des te débat wala leneen loo xam parti bi wala plateforme bi dina am doole té lool moy tax mu am doole parce que sentir nañ né wax deug fa neex yalla ba nga xamé né tay ñi fi nek représente PDS depuis 2012 ñu ngi leen di gëreum di leen sant ñu ngi leen di gëreum di leen sant mais nak politique lañ wax amul soustraction addition la da ngay yok mais do wàññi suñu amé tay ñew ñun fekk si leen créer ben plateforme je pense très bien que dañ ko wara rafetlu dañ ko wara rafetlu mais waruñ ci wax benen wax bo xamné ni nii koy gisee nenen ñu ngi ko képp ko xamné ni nii nga ci parti bi doon ci liggéey demb tay soog ñew na nga ñew soutenir ndaw ñi nga xamné plateforme bi dañ ko créer pour képp ku bëgg ablay wad képp ku bëgg Karim wad ñu ngi la ci wo ak fo mëna nekk ci biir département bi rek wo nañ la ci ñu ngi la ci wo di la gërëm di la sant di la wax ne na nga ñew japp ci comme nima ko waxee rek Karim la ñuy liggéeyal ñun liggéeyaluñ ma Samba liggéeyaluñ ma Demba Karim Wade la ñuy suba ba jant bi so buñ jógee ci lii incha allahu dinañ préparer def benen manifestation mais lépp Karim Wade la amul leneen ne ko nit ñi xam leer Karim Wade man moo ñu tax a jóg keneen ku leneen man xooluma mais Karim Wade point final amul leneen képp ku ñëw nag tàllal nañ loxo ñun ñëwuñ pour jéem jaar yoonu wala jaar fële dañuy ñëw pour liggéey ànd ci ñoom ñi nga xam ne d'accord nañ ñu jàppale suñu loxo ñu ànd ak ñoom mais képp koo xam ne nii nag da nga xalaat leneen wala jàpp ne ñun li ñu def gëmuñ ko aja nañ dem la ci kanam rawu li bët ku xam Abdoulaye Dieng xam ne PDS mooy dee ci xolam bi neex te demoon na mais li contexte yi taxoon ma demoon du du ma ñëw ci détail yooyu waaye bu ma dellu see sama kër laa dellu si loolu foog mu leer sama kër laa dellu si donc du ma tàggu ma Dumata taguma dem limay tem mën moy ñew liggey and ak ñima fi fekk talal leen loxo mais nak idée bu ma am bo xamne day jëmmal parti bi kanam wala plateforme karimiste bi dina la wo ne la ñewal ñu dem ci bo ci ñewé xayrun bo ci ñewul ñun dinañ and dem donc lolu moy li nga xamne mo ñu fi dajale tay ñu fasiyene joxe li nga xamne ne képp ku nekk duggal na ci loxom du suma du suma affaire rek ñëpp dugal nañ seen loxo duggal nañ ci loxo du man rek kenn ku ne duggal na ci loxom ñi ñëw ak ñi ñëwul am na ñu dugal ñëwuñ am na ñu dugal ñëw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp kenn nit mënul mbooloo mooy doole waaye nag ñu jàpp ne plateforme encore une fois Karim Wade moo ko tax a jóg dañuy liggéey pour la président Karim Meïssa Wade donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen ma may ma lim parce que mënu ma ñàkk lim ndax ñi nga xam ne tey ñoo initié lii ñu ngi ci toog fii tey bi ma leen ko waxee dañu ko rafetlu muy Cellou Diallo muy bay ñas muy Senghane muy Mamou Diba muy Keba muy Ndeye fay muy tey képp koo xam ne yaa ngi ci plateforme bi ñoom xaasum ñëpp ñoo d'accord ci affaire bii pour que ñu jëmmal ko buñ ko jëmmalee nag man rek mu ma taxawoon dem mënu ko mais ñoom ñoo ci ànd ci initiative bii ñu jël accompagner ñu ba lii réussir ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sent ñi nga xam ne nii tey ku lim juum nu ma ko waxee rek muy Néné Dieng mi fi teewul bokk ci plateforme bi ak ñeneen ñu ngi leen di gërëm di sant bon je pense bien que bu amul yeneen question ñu ngi gërëm di wax ne beneen programme bi nga xam ne ñu ngi koy prévoir pour lancer ko après bu ñu waree jàmm ak salaam dinañ ci wax tënk ko mais nañ jàpp ne train bi départ na te train bi du dudul kenn lu dul Karim Meïssa Wade